si tu veux pas travailler faut rentrer chez toi ça parole de Carlos maanaam ci wolof boo bëggee liggéey toogal boo bëggul liggéey nga ñibbi sa kër. Carlito boobu lay may ci biir kër gi ci biir sunu label TV donc nag ci kaw loolu sama téléspectateur yi téléspectateur sunu label TV ci xolu Sénégal ci xolu sénégalais maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen laaj naka ngeen fanaanoo j'espère que ku ci nekk ci yéen yeewu nga si jàmm di ko ñaanal euh, képp kuy yeewoo Sénégal doon sénégalais doon beneen nationalité di ñaanal aussi bépp sénégalais bu nekk étranger ñu ngi koy ñaanal jàmm ak salaam ak courage parce que étranger métti na nest di jëlu soo tukki donc ci kaw loolu tey ñu nar a waxtaanee li nga xamante ne moom mooy euh, donc njàngum xale yu jigéen yi fii nii ci Sénégal euh, est-ce que xale yu jigéen yi dinañ dem école est-ce que dinañ yeggali seen jàng ce que aussi droit boobu nga xamante ne dañ ko am pour ñu dugg école ndax parents yi ñu ngi koy matal ak lan mooy indi gàllankooru jàngum xale yu jigéen yi ci biir Sénégal ba nga xam ne léeg-léeg bu ñu demee ba euh, ci classe yu mag yi maanaam góor ñi ñooy ëpp jigéen yi balaa loolu tamit euh, damay jaajëfal bu baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon manifester démb gis nañ ne jàmm ak salaam bi ñu leen ñaanoon am nañ ko xam naa dinañ si xuus tuuti ci kanam balaa loolu ma bàyyi sama chroniqueur bi nga xamante ne tey jii moom moo ma accompagner sama plateau la oreille dafa biddanti wis wis rek mu biddanti moom xaw ma bés bu tawee ba inondation yi commencé moom moom du ñëw ko wis wis rek laa oreille nee na moom dafa biddanti di jéelu. Mm-hmm. Mm. yow biddanti woo. Mm. d'accord kon nuyul. <laughs> merci sama congolongo. di remercier suñu téléspectateurs yi suñu téléspectatrices yi suñu Label TV. Mm-hmm. ñoo xamante ne ñu suivre suñu programme émission kaay chaque jour du lundi au vendredi. Mm-hmm. di leen remercier bu baax a baax di leen jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci ñoom chaque jour merci beaucoup. Mm. kon yaa ngi sa émission kaay yi nii. waaw kaa nga. <laughs> yow boo ñëwee toog rek dañu xam ne émission kaay commencé na jarul sax nga koy wax yow bu ñu la gisee rek say lunette say dégagement say takkaay say jaay ru bëri rek ñu ne kii kaay la émission kaay bi lañ nekk léegi nag comme ni ma ko waxee euh, donc di jëlu mm-hmm. euh, dañuy jaajëfal bu baax ñi nga xamante ne mooy leader euh, opposition yi nga xamante ne démb ñoo jiite woon marche bi ñu gis ne quand même spéculation bi bëri woon na wax bi bëri woon na xëy na nit ñi ñu ngi doon xaar yàq am wala maanaam incident bu déplorable am mais gis nañ ni que dem nañu manifeste def nañu seen marche laa mën a wax sax du manifestation def nañu seen marche def nañu seen ay discours ci jàmm ak salaam ku si nekk ñibbi nga sa kër ci jàmm ak salaam. ci kaw loolu aussi may may féliciter en tout cas ñu demoon ci marche bi parce que ça se voit que léegi peuple mature lañu. avant immature la woon mais dafa mel ni daal au fur et mesure ñu ngi jël un peu de maturité di remercier aussi nag en même temps monsieur le préfet bi nga xamante ne moom moo autorisé marche bi parce que quoi a puisse dire yaakaar naa DJ Lou autorisé marche encadré ko moo gën a yomb ne da ngay tas mbooloo surtout que nag gis nañ ne mbooloo ba ñëwoon démb je pense que encadré leen moo naroon gën a yomb ne da leen di tas du mhm. kontaan nga démb waaw alhamdulilah parce mhm. que la marche a été faite mhm. euh, parce que actuellement maintenant la jeunesse est consciente la mhm. jeunesse est devenue consciente mhm. xam nañu bu baax lu leen lu leen tax a na lu leen lu leen war ak lu leen dul war mhm. donc actuellement nii mun nañu ni alhamdulilah parce que lu ñu doon foog lu ñu doon fooge demeewul noonu yu bëri dañu foog ni après comme comme le 23 passé lu ah, li ah, li amoon loolu lay amaat alors que non euh, c' était au contraire et ça c' était waaw dépassé nañu parce que la jeunesse est consciente voilà et te te topp nañ seen leader. Mhm. Euh, ki Ousmane Sonko. Mhm. topp nañu ko. voilà et mhm. ñu def seen marche. pacifiquement. di wax di di wane seen naqar. Euh, devant les Sénégalais et ça a été extraordinaire magnifique surtout que c'est un droit. waaw mais mais mais amoon na public. amoon amoon na public lu mus lu musta am Sénégal. <laughs> waaw amoon na public non li lu musta am Sénégal public bu yaru mais public bu indiscipliné bu oh, oh, oh, immature lañ doon am. mais démb quand même on a remarqué que les nit ñi franchement voilà ils étaient disciplinés euh, hier et je pense que aussi euh, à chaque fois que mu am euh, manifestation bu opposition muy bu nguur bi aussi je pense que dafay baax leader yi nga xam te ne ñoo jiitu ñu mhm. ñaax mhm. jeunes yi mhm. ne leen dañu ñëw pour pour pour pour ñaxtu pas ñëw pour yàq pas ñëw pour euh, aussi faire du mal à ñeneen yi parce que voilà des fois euh, defkatu yu ñaaw yi dañ ci laxasu mais quand même macha allah aussi mun nañu wax ne mention spéciale à suñu gendarmerie bi ak waa police parce que def nañ le tout ba nga xamante ne euh, en tout cas ñaawteef déggaguñ ko si bien vrai que nag suñu mbokku journalistes am nañ ay spéculation yu bëri yu ñu def accident ay waa MFD MFDC dañ leen a jàpp et tout mais ce son des propos yoo xam ne jusqu'à présent ils n'ont pas été euh, confirmés mhm. donc mën nañ wax ne ay fake news la mhm. je pense que journaliste war na di éviter yooyu et que mhm. information da nga koy vérifier ba pare balaa nga koy euh, euh, véhiculer du dëgg loolu moo fi bari loolu moo fi bari am na journaliste yoo xamante ni tout journaliste la rek parce que voilà <laughs> journaliste la rek journaliste la rek voilà journaliste ah. boo xamante ni doo wàcc sur le terrain tu eh. da ngay da ngay tu tu t'informes à travers les réseaux sociaux loo dégg rek nga bind ko rek pour su sa site rek am peu am am vue ça ça ne se fait ah, pas un bon journaliste tu descends sur le terrain les faits devant toi nga rapporté ko maanaam li ngay gis source bu sûre non sérieux source bu sûre li ngay li ngay wax maanaam nga teg ci bët lii maa ko teg bët gis naa ko nga wax loolu la woo nga xam ne li nga mais c'est ça le journaliste c'est ça le journaliste mais nga toog sa bureau wala nga toog sa eh, télé di di xool réseaux sociaux lu xam rek lu loo gis rek toog ku bëgg a toog ku bëggul seetaan kaay tamit da ngay toog <laughs> parce que dañuy kaa ah. ci kaw loolu nag tey ñuy waxtaanee aussi loo xamante ne mën nañ ne kaala muy jàngum xale yu jigéen yi hmm. parce que dañuy gis ne ñu bëri am na bu ñu demee ba si biir day am ay gàllankoor yoo xamante ne da tere ñu continuer seeni étude wala parent bi si boppam moo naan euh, ah ñaangum xale bu jigéen foorul surtout dans les euh, dans les villages nga koy gën njëkk mm-hmm. gën a dégg euh, wala même des fois duñ leen dugal école parce que dañ naan bàyyi ñu dugal góor ñi ñoom ñu jàngi xale yu jigéen yi toog ci biir kër gi ñuy xool nag waxtaanee tey cas boobu noonu ndax cas sérieux la mm-hmm. xale yu jigéen yi nañ leen bàyyi ñu jàngi parce que quand même si société bi lañ bokk am nañu njëriñ aussi te gis nañ ne ay jàmbaar lañu. Mhm. du dëgg mhm. donc foog ñu dugal xale yi seen droit la donc le droit à à l'éducation scolarisation bi ci la bokk donc xale bu jigéen bu nekk rek war nga dem ci kër jàngi muy école muy arxuraan maanaam muy nasaraan muy arxuraan bi mhm. voilà ci kaw loolu nag euh, dañuy euh, dalal ki nga xamante ne moom mooy euh, suñu invité bu njëkk bi mu ñuy donc jëlee depuis Dougar. mu nekk une enseignante boo xamante ne elle a commencé ses débuts euh, très jeune muy euh, madame Diouf mu wax ñu moom en tout cas euh, naka la gisee njàngum euh, donc xale yu jigéen yi allo madame Diouf. oui. madame Diouf noo def. allo. alhamdulilah bi yegg si na foofu. tuuti rek daa wis. daa wis. waaw kon baax na kon biddantiwu leen ni sama chroniqueuse bi ndax moom wis wis yi moo tax mu biddanti ba mënul ñëw ci plateau bi tey. waaw ah, ah, daa amul tool moo tax. <laughs> amul tool voilà effectivement amul tool moo tax. <laughs> moo tax mu biddanti. d' accord ok Maha madame Diouf ñu lay remercier bu baax euh, si participer sa li nga nangu participer suñu émission thème bi tey di euh, donc scolarisation xale yu jigéen yi ngay euh, enseignante ci école à je pense que loolu la. je suis au lycée Ousmane Sow de Diamniadio. de Diamniadio. comme professeur des sciences de la vie et de la terre. effectivement léegi nag tey lan nga lan nga ñu mën a wax ci euh, scolarisation xale yu jigéen ñi. voilà donc euh, euh bonjour à toi. Mhm, à ton équipe et aux mhm. euh, donc comme j'ai des problèmes avec le wolof. Mhm. je je vais m'exprimer en. en français. Si c'était en séeréer, il n'y aurait pas de problème. <laughs> Donc, Malheureusement, un... puisque tu as un public qui n'est pas euh, exceptionnellement séeréer, donc euh, on prend le français. <laughs> D'accord, donc on prend le français. D'accord. Euh, donc le thème que vous avez choisi, mm -hmm. la scolarisation des filles, est un thème d'actualité, un thème pertinent. Mm -hmm. Merci. Et nous notons ensemble que la problématique de la scolarisation des filles se fonde sur le principe fondamental qui conçoit l'éducation comme la clé de développement. Donc ainsi, euh, l'éducation relève des droits de l'homme et se veut une éducation pour tous. Elle devient ainsi inclusive. Tout le monde doit être éduqué et scolarisé. Euh, toutefois, il y a des particularités du groupe. c'est-à-dire la scolarisation des handicapés. Mmh. cause problème. Et des groupes, et des groupes vulnérables qui posent problème. Mhm. Concernant les filles, mhm. la scolarisation est un élément essentiel de leur à une autonomie économique. Mhm. Elle peut aussi être envisagée comme un enjeu ou un levier de développement. Quand vous dites euh, une autonomie euh, économique, Euh, c'est c'est maanaam euh, xale yu jigéen yi bu ñu jàngee ci lañ gën a mën a euh, yor seen bop voilà. Mhm. ci lañ mën a yor seen bopp. Mhm. parce qu'ils pourront elles pourront trouver un emploi. Mhm. mais elles pourront gérer aussi le économie. c'est-à-dire si elles font du commerce. là je pense que elles réussissent plus facilement. d'accord. ensuite. Euh, donc je dirais qu'elles peuvent aussi être envisagées comme un enjeu ou un levier de développement. mm la femme instruite ou la fille instruite échappe plus facilement aux grossesses et aux mariages précoces. Mm-hmm. Qui pose problème surtout pour euh, la scolarisation des filles, la continuité en tout cas. Bien mm-hmm. la femme instruite encadrerait mieux sa progéniture mhm. et encadrerait mieux son environnement. Mhm. Euh, toutefois, mhm. euh, la scolarisation intégrale est un rêve, pour ne pas dire un objectif qui soulève de réelles difficultés sociales, culturelles et religieuses. D'accord. Ainsi, euh, l'école est considérée comme un facteur perturbateur de l'ordre social. D'accord. Dans, dans, quel secteur On peut dire euh, au Sénégal, euh, c'est dans la ville, c'est dans les villages, ou bien euh, c'est partout, c'est partout. D'accord. Euh, dans la communauté, dans la communauté sénégalaise, mm donc l'école est un facteur perturbateur. D'accord. parce que nous sommes dans une société. Mhm. où les rôles sont bien définis entre la femme et l'homme. d'accord comme toujours ku góor ki mooy jiitu ku jigéen ki topp njàngum jigéen amul solo. non non pour ñoom njàngam jigéen amul solo. voilà ñaar genre di yi noonu la ñuy xalaatee sama chroniqueur pour mhm. euh, ñoom njàng jigéen amul solo te mhm. njàng jigéen am na solo. waaw. di jëlu euh, déglu la euh, concernant les résultats des filles. Mhm. donc ces dernières années. nous avons constaté euh, une percée mhm. au bac. une percée des filles au bac. Mhm. Euh, ñoom ñoo ëpp jom ñoom ñoo ëpp jom xale yu góor yi. Euh, pour le moment xaw ma ñoom ñoo mhm. mais liñ liñ gis. résultat bac yi. et yu jigéen ñi ñooy jiitu ci kaw surtout avec les mentions. bilaay ñooy jàmbaar. waaw ñooy jàmbaar di génn euh, déglu fi là euh, il faut il faudra des études scientifiques pour confirmer cela mhm. mais peut-être à partir des résultats de mon école mhm. euh, le lycée Ousmane Sow de Diamniadio mhm. donc je vous donner quelques résultats peut-être qu'il faut confirmer ou infirmer donc je prends la seconde LDA donc, nous avons 43 à l'issue des, des résultats de, de la composition du premier semestre. Donc, dans cette classe, on a 43 élèves qui ont la moyenne. D'accord. Et sur ces 43, nous avons 39 filles. D'accord. Et les c'est sur, euh, euh élèves mhm. sur, sur élèves. 72 D'accord. 72 élèves. Et les 39 sont des filles. Mhm. madame Diouf xale yi jàngatuñu de 72 élèves ci classe. 43 yi kese am moyenne. waaw ah loolu de ah, di jéelu. 43 hmm. élèves yi 39 yëpp ay jigéen lañu nag di jéelu dégg nga. waaw 39 yëpp ay jigéen. si wax di jéelu. ah mën naa la mën naa ko Allô, oui. Oui, Acha, Madame Diouf, on vous écoute. En cinquième A, il y a 41 élèves qui ont la moyenne. Donc 42, je me dis, je me trompe, je me suis. Mm-hmm. Et sur les 42, il y a 24 filles. 24 filles Oui. Mm-hmm. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième mm-hmm. et la septième sont des filles. D'accord. Oui. Ensuite, en, en terminant L2B, Oui. Donc là, nous avons un effectif de 70 élèves. Oui. Donc a 20 la moyenne, donc -hmm. euh, dont 13 Mais Madame Diouf, oui. bëgg nga avez foofu fait sa barre. Parce que mhm. aussi, les résultat que vous êtes en train de nous donner, mhm. yi ngeen ils sont mhm. Voilà, c'est vrai qu'on parle de la scolarisation des filles. On voit que Digeni, quand même, si nous en moyenne, euh, plus de la moitié à la le donne. mais si on regarde résultat yi nga xam te ne moom nga nekk duñu jox euh, mhm. c'est c'est des résultats catastrophiques parce que là si vous me dites sur 70 élèves 20 yi rek ñoo am moyenne est-ce que tu mhm. vois euh, donc ça veut dire qu'on a 50 élèves yoo xamante ne seen résultat c'est en dessous de la moyenne loolu c'est c'est la ah, faute aux enseignants c'est la faute aux élèves des parents comme Didier lu mu koy waxee parce que aussi résultats yi catastrophiques lañu Donc, je pense que là, a plusieurs facteurs qui interviennent. Uh -huh. euh, je ne peux pas dire que c'est la faute enseignants, uh-huh. euh, mais je dirais que c'est l'ensemble des acteurs euh, de l'éducation. Et ça peut commencer par, euh, nos autorités, uh-huh. parce que là, nous avons des classes pléthoriques d'abord. C'est ce que je remarque d'ailleurs. Euh, Didier a pour que 72 élèves yooyu noonu yëpp mu mën leen euh, ku ci nekk euh, waaw jox ak bi nga xamante ne moom moo ko war pour jàngal la mhm. voilà donc facteur boobu mu ngi mhm. euh, ensuite il y des problèmes de salle de classe mhm. et ensuite il y a une démission des parents d'accord là on constate par exemple à l'école tu peux avoir des problèmes avec un élève mm -hmm. on élève qui désapplique ou qui convoque le parent, mm -hmm. mais il tarde à venir. Ou bien des parents qui font toute une année scolaire sans passer à l'école pour ce que c'est leur enfant. Donc mm une démission que nous avons notée du côté des, des, je pense que monsieur <laughs> Thior euh, je pense que semaine dernière bi di Dielou mhm. euh, monsieur Thior aussi bu mu toogee fii loolu la doon souligner par rapport à l'éducation surtout que dafa mhm. bokk ci secteurs yi nga xamante ne moom mën nañ ne moom mooy secteurs yi gën a feebar au Sénégal ma tuddee leen secteur cas mhm. yi muy muy sécurité di santé ak éducation boobu secteur yooyu moom di Dielou ay cas lañ loolu laa fi am na suñu émission voilà madame Diouf Biaw Mhm. oui. waaw léegi léegi comme comme léegi tey jii nii lan mooy tax par exemple euh, c'est vrai que euh, jigéen ñi ñu ngi ci classe yi ñu ngi jàng ñu ngi am ay résultats mais dañuy gis ne après si ci mujjanteel yi euh, xale yu jigéen yi dañuy néew pour maanaam continuer jàng bi lan lan mooy indi maanaam abandon boobu walla ñàkk dugal école bi de euh, euh, ce côté-là aussi, on a constaté, comme par exemple au niveau des écoles, mhm. euh, parfois tu, tu as des élèves qui viennent qui viennent en retard. Mm -hmm. Tu leur poses la question. Mm -hmm. Donc, ils vont, elles vont se dire que c'est parce que le matin, elles font les travaux ménagers avant de venir à la maison, mm -hmm. avant de venir à l'école. Alors là, que le garçon, problème. il se prépare. Alors que le garçon, à la place, il uh-huh. ne fait rien. Et il vient en retard, Exactement. comme la fille. Comme la fille. <laughs> comme l'a fille. Ah, Ensuite, mhm. il y a les mariages précoces que nous avons constatés aussi à l'école. Oui. xale yi dañ leen di maye sëy actuellement la tendance c'est ça je n'ai pas compris mhm. euh, euh, peut-être sociologie ñoom nañ ci mën a gëstu bu baax effectivement mais la tendance c'est ça donc xale yi dañuy teel a sëy léegi ku ci sëy mhm. soit ñu ne la waa dañ day sëy mais dañ koy bàyyi mu mu jàng boobu boobu moom ay dóor la rek comme ni ñuy wax rek <laughs> loolu li ñuy mais en en fait du ko bàyyi mu jàng parce que balaa muy def euh, neuf mois. Mhm. elle est en état de grossesse. elle est obligée de quitter. Mhm. donc fii l' dernière nous avons trois abandons je ne sais pas si c'était des abandons mais elles avaient suspendu leur inscription. je ne sais pas si euh, euh, elles sont revenues cette année là. Mhm. même cette année nous avons constaté ces cas là. d'accord ce qui fait que là aussi c'est un facteur. Euh, euh, qui, qui, qui, peut expliquer les résultats de mhm. ceci. D'accord. Mm-hmm. donc je pense que y une sensibilisation boo xam ne war nañ ko def auprès parents yi pour ñu mën euh, di bàyyi xale yu jigéen ñi ñu terminer seen cursus bañ di leen di teel a maye euh, xam naa nag si société bi dina am ñu ma si mere <laughs> parce que mm-hmm. comme ni nga ko waxee sànq rek société bi moo demee noonu maanaam mm-hmm. jigéen moom voilà même est-ce que teel a maye la tamit waaw est-ce que teel a maye bi la tamit est-ce que teel a maye la ah mais bu dee day jàng da nga koy mu jàng di jédu waaw mais waaw mais <clears throat> mënoo mënoo gis sa doom muy jàng waaw à part jàng bi wala nga xam ni bi eh, am na xale yi nga xam eh, eh, bi. ñu ñu la si après jàng bi. loolu beneen facteur la. xam nga mais tey jii nii mais ma ma ko a indil beneen ah, après gis ñu bi leneen la ñu si nekk. yu ah. bokkul ak jàng. Ah. mais man en tant su ma gisee loolu xamante ni jaadu balaa ma indi beneen gàllankoor man ma may ko beneen ko benn waaw mais moo fi bëri <laughs> moo fi bëri madame Diouf dafa mel ni nag bëri nañ ay parents yu bëri ñuy xalaatee ni di jëlu mais waaw wuyul madame Diouf le parent la oui euh, comprendre naa ko bu baax mm-hmm. xam nga xale yi am na ñoo xam ne dañuy jaar ci beneen yoon mm-hmm. mais ñàkk a comprendre ak âge bi booy moom mooy tax mm-hmm. moo tax gis nga le parent ne doit pas démissionner de même que nga école ñu dañuy conscientiser di wax di wax mais cas yooyu bu amee. Mhm. parent bi day déplacé ñëw école ñu bokk ko gérer xale bi. dëgg la def ci suñ kenn tolluwaay kattan. Mhm. essayer récupérer la encore. maintenant bu ñu demee nag ba def li ñu war ñun ñëpp parent comme ak euh, professeur. Mhm. enseignant ñu def li ñu war a def. et que ça ne marche pas. xale bi ñu may ko mu dem sëy. <laughs> mais am na am na cas yoo xam ne à l'école. day nekk bu premier de sa classe. moi récemment euh, là où je suis dans mon quartier. Mhm. benn xel bu ndaw boo xam ne euh, doit faire la cinquième ou la benn pël la. Mhm. cinquième auxiliaire. Mhm. bañ naa ko ba sama ministre laa ko doon woo parce que l' enfant elle elle est di jël ay premier ay. et maye nañ ko maye nañ ko c' est une fille. voilà oh c' est dommage. donc ça c' est du gâchis. c' est du gâchis. il y en a combien comme ça il y a a donc ni parents yi war a xam ne. xale yi dañ war a bàyyi ñu jàng góor kum jigéen. Mhm, jigéen li ko waral mooy. Mhm. da ngay xool kër yi nga xam ne famille yi nga xam ne fu jigéen ki jàngul liggéeyu. Mhm. mais dund bi dafa nekk ba nga xam ne moom elle est obligée de laisser sa famille pour aller faire un petit commerce donc on a libéré toutes les maisons kenn benn jigéen dafa fi ci biir kër yi comme ki ñu nga bàyyi nga arrêté loo ko jàng tôt ou tard dañ dem bàyyi kër bi dem dem jaayi bàyyi ko mu jàng mu mën a gérer famille parce que bu jàngee mën na indi xaalis bu mhm. jàngee mën na la jàppale ci yar xale yi mhm. mën na jàppale ci jàngale xale yi mhm. l'éducation est fondamentale nañu loolu na ko nit ñi xam effectivement ki nga xam ne nag mënuñ ci moom dara nañ ko may sëy ki nga xam ne xam na mën na ñu jàppale ko mu jàng ba ca kanam parce que am na niveau boo xam ne xale bu jigéen bu fa tolloo su yàlla maturité intellectuelle nga may mu sëy mais dana continuer jàngam ak sëyam effectivement te mën a gérer këram waaw <laughs> accord donc euh, madame Diouf duñ la retenir quand même en tout cas merci beaucoup. Euh, mm-hmm. ñu signalé ne madame Diouf comme ni mu ko waxee donc euh, professeur la au niveau euh, du lycée de Diamniadio euh, de la de la science et de la terre foog naa noonu la oh. ñun euh, science naturelle lañ ko doon wax ba may jàng science naturelle la woon mm-hmm. <laughs> voilà en tout cas merci eh. beaucoup ñu ngi lay remercier bu baax je pense que eh. intervention bi rafet na. et que aussi euh, li ñuy seetaan jëlee lañ ci jàngat ñu lay euh, donc remercier bu baax euh, madam Diouf di di la bàyyi nga tàggatoog ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan. c'est à moi de vous remercier de cette contribution à l'école sénégalaise. Mm-hmm. Euh, donc euh, mon dernier mot, c'est de dire simplement mhm. aux parents, aidez nu à éduquer les filles, mhm. aidez-nous à éduquer l'enfant sénégalais. Mhm. Merci. beaucoup, Madame Djoufa. Euh, je pense que Didier lu madame Diouf lu mu wax euh, am na solo nee na ñu ñu jàppale leen ñoom enseignants yi ñu contribuer ci éducation Euh, jigéen yi mhm. euh, contribuer ci éducation quand même jeunes yi parce que ñoom ñooy avenir u euh, Sénégal mhm. du dëgg waaw voilà léegi di jëlu loo wax si lool lu mu wax dafa am solo trop mhm. maa ngi koy rafetul maa ngi koy si si si contribution lu mu important mais mois je vois que ni Fatou un parent nga dugal sa sa doom école depuis temps bas âge bu mu doon xale CI CP nga koy muñ nga koy mu dem mu dem bu dem ba mu néeg ba mu egg niveau collège mhm. sixième zokon premier terminal mhm. kon parent boobu noonu boo gisee mu maye doomam wala mu arrêté jàngam dafa am lu tax lu tax waaw dafa am lu tax mhm. parce que euh, euh, bu fekkee ne bu fekkee ne pour mu jàng njëriñ njëriñ boppam wala njëriñ euh, njabootam doo ko génne école wala doo ko may par exemple mais boo gis depuis parce que yaa ko yaa ko doon investi depuis sixième depuis nga koy fayal jàngam di ko jënd ay ah, fourniture. des fois aussi fay ah des fois yi la nekk. ay école publique yi la nekk. waaw mais mais am ñëpp a nekk ci école privée yi. waaw mais fay da ngay fay droit d'inscription fay tenue non. tenue tenue waaw fay sa sa scolarité. waaw blouse fay amul scolarité école publique amul eh, fay fourniture yi. mais ñoo fay loolu. waaw ñoo ko def. Mhm. léegi ñaata at depuis depuis CI. terminal ah mhm. nga fay sa doom école eh, nga fay jàng eh, sa eh, kiyom noonu loolu mhm. lépp nga koy fay ba à ma nga ji nga nga ko may wala nga arrêté jàngam kon mhm. am na dafa am lu tax c'est ça le problème moo wax la exemple am na benn xale bu jigéen moom ma mosoon woo bon sama sama on se connaît parce que sama collègue la woon sama saf la sama sama sama promotionnel la ñoo bokkoon école dafa ma mosoon woo mu ne ma euh, sama papa ne su ma amee moyen dafa may jënd iPhone 11 téléphone de mu ne ma léegi mu ne ma ne ko léegi loo bëgg mu ne ma dama lay yónni nga falsifier ma ko aw moyen pour nga falsifier ma ko nga def ci moyen di jëlu sañ nga lu raw loolu ndax yow kaa non di jëlu ñaata la man wóor na ma ne li la proposé bu doo xaalis bu weex tàll nga def ko nga jàppale ma pour ma mën a am iPhone iPhone li parce que jour boobu noonu j'étais j'étais j'étais la place de son père mm-hmm. li ma ko yedd dama ko yedd expliquer ko ba mu xam ni li mu ko wax dafa am solo ma ne ko ma ne ko ma ne ko gis nga li ngay def ni su ma la falsifié falsifié sa bulletin yi ni ma jox la ko mhm. di nga am iPhone mhm. mais doo am expérience mhm. boo defaatee composé wala nga defaatee examen doo am dara parce que doo jàng xam nga lu tax sa papa dana dina la boo amee 20 sur 20 de moyen la jënd iPhone xam nga lu tax ma wax parce que pièce la pour nga jàngale rek da bëgg nga fas jom nga jàng am sa moyenne

scolarisation des filles. Mhm. loolu loolu euh, parents yi am nañ ci part de responsabilité mun naa ne. waaw mais am na ñoo xamante ne di jëlu duñ sax dugal seen doomi jigéen ñi école. école waaw surtout euh, boo demee euh, des fois si lakkat yi surtout dans les régions yi nga xamante ne mën nañ ne c'est un peu reculé. Mhm. nekkuñu si biir ville yi. Mhm. ñoom majeure partie du temps bi lay wax mooy jigéen. ci biir kër gi mhm. jàppale yaay ji mhm. est-ce que tu vois ku góor ki dem jàngi école est-ce que tu vois déjà foofu noonu mhm. am na benn euh, nu mu euh, nu mu tuddati euh, ségrégation laa ko mën a tuddee parentale ou bien xaw ma ban moo laa ci mën a utiliser mais je pense que c'est pas normal parce que xale bu nekk droit la pour sa pap wala sa yaay wala sa pap ak sa yaay wala en tout cas ki nga xamante ne moo nekk sa tuteur mu duggal la école nga jàngi loolu droit la xale bi dafa am droit boobu école nasaraan nga nga dem dugal ko école nasaraan école euh, alxuraan nga koy dugal mhm. nga dugal ko école coranique wala da nga koy dugal feneen mais l'essentiel est que mhm. am ce droit à l'éducation mais dañuy gis ne xale yu jigéen ñu bëri du ñu école mhm. wala buñ duggee école comme ni ko madame Diouf waxee quelque temps lañ fay def après ñu may leen ñu sëy et des fois dafay nekk ay élèves yoo xamante ne dañuy performant dañuy excellente dañuy am ay ay ay ay ay yu baax mais des fois aussi dangay ngay remarquer ne famille bi famille bi euh, kiiwul comme ni ñuy wax rek demeewul noonu et tu nga gis benn DJ lu bu jógee extérieur ñëw takkaayam nga yaakaar ne moo ngeeg àddina la ci biir mhm. nga jël sa doom may ko ko mhm. parce que bëgg nga mu jàppale la mhm. nga bëgg a débarrassé wu des fois parents yi dañuy débarrassé wu seen xale yu jigéen yi et tu donc vraiment loolu daf fi daf fi war a jeex DJ lu non li nga wax ni am na solo mais mais c'est rarement rarement fi ngay wax ni côté yi ngay wax ni c'est rarement nga dem foofu noonu nga fekk fa xale bu jigéen jàngul français jàngul arabe c'est rare bu jàngul français mu ngi mu ngi mu ngi. mu ngi mu boobu ne côté côté côté boobu man côté bu ma dëkk. Ah. ngi arabe. mu ngi jàng mu ngi daara mu ngi na alquran hmm. bu jàngul français jàng na alquran hmm. bu jàngul alquran jàng na français rarement nga gis xale bu jigéen yoo xam ne jàngul français jàngul alquran na sax hmm. c'est à voir c'est rare. kon nga bëgg wax foofu noonu les parents ils sont conscients que ni bu jigéen bu góor ci yem bu jàngul français bu nekkul ci français boo ko mu ne la man jànguma français mais jàng naa alquran loo ma ne maa ngi si daara alquran laa jàngi mhm. non c'est loolu c'est forcé mhm. c'est nga gis xale bu jigéen jàngul français jàngul arabe loolu moom c'est rare man xaw ma côté boobu noonu est que man mos man moom gisuma ko mm. teguma koy ñu ngi français ñu bu ñu wàccee français ñu ngi daara man tase ay jigéen ñu bëri comme ni ko waxee bu dëkk seen côté yooyu noonu jànguñu nasaraan jànguñu jànguñu alxuraan Casamance ban côté Casamance yaa ni Casamance xanaa waxoo Casamance non non man man li ma la wax dafa leer ah. ma ne la côté bu ma dëkk man ban côté nga dëkk waaw man dama dama man côté Sédhiou bu ma dëkk Sédhiou dans la ah. région de Sédhiou dans la région de Sédhiou ah. doo gis benn xale bu jigéen ñëw jàngul arabe français dans la région de Sonko na donc kon baax na dama foogoon région foofu fii foofu la rek. moom laa yaakaar Sonko dans la région de Ziguinchor la nekk tamit. ah Ziguinchor la nekk bokkuñu région Sonko mu ngi Ziguinchor man maa ngi si. daf ci sotti la rek. mais en tout cas daal c'est la même Casamance c'est le même Sénégal voilà. na ko def ci sotti la rek di jéem na ko def ci sotti la rek voilà donc euh, parents yi comme ni ñu koy waxee bàyyi leen xale yu jigéen yi ñu dem jàngi ah, madame Diouf wax na ko c'est c'est vraiment nécessaire parce que xale bu jàng xale bu jigéen bu jàng même bu fekkante ne dafa sëyi après dina mën a gérer jëkkëram dina mën a encadrer ay doomam te de toutes les façons raar ngay gis xale boo jigéen bu jàng sëyi après toog dafatul dara mhm. dina jéem tout le temps def entreprendre quelque chose boo xamante ne dina am benn autonomie financière te loolu tamit dafa important parce que léegi yéen xale yu góor ñi amalatu leen kenn njëriñ est-ce amalatu leen kenn njëriñ mhm. parce que comme on di seen xaalis mhm. la ngeen toppatoo ko seen kër da ngeen koy dem ca xaayee si biti mhm. est-ce que donc je pense que xale bu jigéen bu ne parent bu war na conscient ne war na ko dugal école mu jàng mu bàyyi ko mu yeggali jàngam est bu amee jëkkër comme di jéeloo nga xam ne du defaral kenn dara baax na xayrun mu mën a yor boppam bu dee tase na ak koo xamante ne nag yéwén na mu yor ko yor njabootam. Mhm. du dee est-ce que xale jigéen dañuy xaar loolu Fatou yéen tamit. ah lu tax ba duñ ko xaar. non mais attends ñaata xale jigéen ñoo fi nekk yoo xamante ne ñoo ñoo ñoo à part jàng ñoo def lu leen neex ñoo ñoo ñooy sa jàng lijjantewuñu sa jàng. Mm. jàng am nañ mooy amuñu mooy lijjantewuñu jàng nañ jànguñu lijjantewuñu loolu ñoom xoolal na seen na na seen na seen na seen lépp baax rek. non mais mais c'est la faute à qui ñoom seen lépp baax boobu noonu bu ñoom kese ñoo koy def la faute à qui la majeure partie du temps xale yu góor yi ñoo leen di détourné non mais attends mais parce la ñuy doon waaw loolu la détourné na fekk ci yow Fatou man mënu ma ànd ak yow ma bon yow nga bon mënul nekk ah. waaw soo fekk su par exemple su yow nga bon daa fekk daa fekk ci yow mm. waaw mm. xam nga ñu naan yow la eh, mu nekk ci yow mm. mais xam nga amul loolu problème bi maanaam détourné bopp noonu mhm. bu yow yow boo bëggee ñu détourné sa bopp dinañ détourné sa bopp boo bëggul ñu détourné sa bopp du ñu détourné sa bopp c'est mhm. maanaam lépp lu ñu la def ko la dafa mu ngi si yow mhm. mais lu nekkul si yow mënoo fexe mënoo fexe ala kulli xaal bu mu détourné sa bopp mënul nekk parce que de un xale bu jigéen de un kon sa bopp de benn maanaam góor bu ko woowee buy moom bu bu ci intéressé day xam ne kii lu may wax ne intéressé mm-hmm. parce que day fas kanam de un wala mu ñàkkal ko fayda wala ay man su ma waxee benn benn deux phrases moom benn benn benn lettre lay wax benn tontu la may wax nga xam ne kii intéressé wul ci li may mm-hmm. kon dans ce cas j'ai fait le pause mais mais munoo xam nga mais nga nga may wax may waxtaan nga may wax ngay wax may wax may wax ba ma kon nga fa kon muy daa fekk muy nekk si yow mhm. lépp lu lépp loo xamante ni góor góor lépp lu am si jigéen dafa muy si yow c'est ça le problème loolu mooy problème mais boo focaliser sa jàng nga xam ne jàng rek moo ma ñor mhm. sama avenir moo ma ñor mhm. sama parents yi ñoo ma ñor mhm. benn góor mënul fexe ba ñaata ñu ñaata ministre ñoo fi gis ñoom yow li ngay wax ne jigéen góor yëpp ñu mel ne jigéen est-ce que ñoom dañuy ils vont devenir ministre elles ne vont pas devenir ministre ou député seen bopp gëm seen jàng xam liñ leen seen bopp parents yi jàppale leen benn góor lijjantoo ñu benn góor bu ñu lay wax ñu ñu ñàkkal la fayda bu nga xam ne am na góor am ni ñu mm-hmm. mm-hmm. na ñoo xamante ne kon kon kon kon ah, kon jigéen yow non non non xam nga ki nga xamante ne dafa neex a yóbbaale comme ni ma lay wax rek du ñëpp bokk caractère hmm. buñ du ñëpp am euh, Euh, maanaam éducation boo xamante ne de base dalay permettre yow man mën naa ànd ak DJ Loumi mu nekk sama xarit waaye buy def na ko su dul noonu du tax ma topp ko au contraire dinaa def lu tout ba génnee ko ci loolu mhm. mais am na ñoo xamante ne tey dañoo neex a yóbbaale mhm, mhm. léegi nag foofu laay waxee yéen góor ñi ñooñu nga xam ne dañoo neex a yóbbaale ci ñu ngeen di euh, maanaam defee seen njombe yëpp ñu laa bëgg xale yu jigéen yooyu laa bëgg ngeen bàyyi leen ñoom dañuy bàyyi seen bopp ñoom bàyyi nañ seen bopp lu tax ñuy neex yow waaw léegi lu tax waaw oui waaw baax na je comprends je comprends comme ni nga ko waxee am nañ ay ministres yu jigéen am nañ ay députés yu jigéen am nañ ay directrices yu jigéen am nañ maanaam jigéen yaa ngi partout comme on dit. Mhm. est-ce mhm. que je pense que aussi bu ñu xoolee par rapport ak. statistique balaa nga tontu ma foofu noonu lu tax ñu neex yóbbu. lu bindaa. ne dool non non di naan yàlla yàlla mais yemalewul. waaw ku nekk am nga sa caractère d'accord mais bu ne yàllaa leen bind noonu. dafa ah, dafa neex yomb maanaam seen bëgg-bëgg nga topp. boo toppee sam bëgg-bëgg da ngay dem fu la neex c'est ça le problème Fatou c'est ça la réalité. <laughs> sa bëgg-bëgg boo ko toppee. Mm. fu la neex ngay cëndu la yow tey tey sa bëgg-bëgg boo ko bëgg a toppee. Mm-hmm. fu la neex ngay dem lu la neex ngay kenn mënu ci dara mhm. instant yi nii moom mooy le problème de la société sénégalaise sénégalaise mhm. mooy l'éducation de base bi nga xamante ne moo lay permettre yow foo mun ti dem mhm. yow di nga xam yow yaay kan mhm. di nga xam fan nga jóge ba yenn yi di nga ko jomb def muy jigéen muy góor waaw muy puisque tey nag dañuy wax ci li nga xamante ne moom mooy scolarisation des filles maanaam njàngum xale yu jigéen yi mm-hmm. côté boobu aussi il faut ñuy ñaax xale yu jigéen yi ñu ne leen bu ñu bëggee percer dans leurs études il faut que à un certain moment ñu def une croix si xale yu góor ñi mm-hmm. du dëgg mm-hmm. ñu concentré aussi seen jàng voilà parce que je pense que aussi yenn parents yi jigéen yi bu ñu leen wonee Euh, fulla ak fayda si li ñu nekk yenn parent yi laa wax parce que am ñoo xam te ne moom xaalis mooy tax ñu maye seen doom mm-hmm. mais je pense aussi des fois parents yi dañuy gis ne kii ma teel ko maye moom mooy nekk sama jàmm mooy nekk jàmmam donc aussi côté boobu dañuy sensibiliser xale yu jigéen yi bu ñu nekkee ci jàng bi ñu concentré aussi def ci seen kemtalaay kàttan ba pare bu ñu paree nag léegi ba téye seen lijaasa comme ni ñu koy waxee euh, après ñu ñu ñu kii rek ñu happiness wut seen wut liggéey mën a en tout cas autonome par rapport ak euh, xale yu góor yi nga xam ne amalatuñu kenn njëriñ ak nouvelle génération bi nii waaw mënuñu ko ak sa fukki xel yow sa xamal sa loolu mënu nekk génération 2000 ah génération 2000 bii nii. Eh. kii waaw yow tam loolu mënul nekk mënul nekk même parents yi dañuy dañuy doom te mhm. dañuy continuer éduquer doom une très bonne éducation. de base c'est pas bu ne dañuy joxe seen doom pour ñu mën a nekk pour ñu te soutenir si seen jàng. Mhm. mais jigéen ñi ñooy problème yi en mhm. fait si sa mais boo génnee sa kër. lu ñu def yow yaa mara détail c'est-à-dire. Fatou ñun si seen dëkk bi la nekk am na loo xam ne am di indil ay ay ay problème seen jàng ban jigéen <laughs> la wax ma mm. mm. gis am na téléphone te iPhone yu cher. Mm. iPhone la ñuy laal te iPhone yu cher. Mhm. la ñuy lal pour lan. waaw des fois des fois téléphone nag day yàq euh, jàng day <laughs> yàq xale et tout la ñu nekk fii nii xam nañu lépp voilà léegi nag euh, Didier Lou dañuy dem euh, toujours jël suñu invité bii muy Thérèse Marie Coumba Ngom nekk ci Louga. moom tamit di directrice d'école mhm. maanaam moom tamit ñu mu wax ñu quand ci jàng xale yu jigéen yi moom naka la ko gisee allo. allo oui. bonjour. wala ma ne la salaamaaleykum. maaleykum salaam wa léegi euh, Thérèse euh, ñu bàyyi la nga nuyoog ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan nga présenté wu waale. waaw waaw waaw asalaamaaleykum ñuy seetaan di ñu déglu nuyu naa leen ziar naa leen kenn ku ne ci turam ak santam mhm. donc man maa ngi tudd Thérèse Ngom mhm. nekk fii au niveau de Louga pratiquement dans le département de luga IEF Louga donc je suis enseignante directrice d'école mhm. d'accord donc mhm. voilà moo ci école bi ñuy wax école Ndiakhar. Ndiakhar c'est dans le district waa dans le district de Koki plus précisément dans la zone de Warak. d'accord te yaakaar naa ne foofu tamit yéen a ngi seetaan sunu Label TV di seetaan kaay. bien <laughs> ñu leen di jaajëfal bu baax. Euh, tey nag euh, madame Ngom ñu doon waxtaanee li nga xamante ne moom mooy scolarisation xale yu jigéen ñi maanaam njàngum xale yu jigéen ñi. ñuy gis ne ñu si bëri dañuy dem ba ci digg bi. mu yàqu parce que maanaam daal am na yu bëri lu si laxasu. donc yow en tant que directrice d'école lan nga ñu ci mën a wax si njàngum xale yu jigéen ñi. bah, parfaitement. Donc, je serai très honorée de vous répondre mm -hmm. à ces questions. Donc, si pratiquement, mm -hmm. nous sommes dans une zone rurale. Mm -hmm. Donc, si pratiquement, le, de, de, par exemple, si l'école de Manekini, vous mhm. m'avez les effectifs total, mhm. ça autour de 117 élèves. Mhm. Parmi ces 117 élèves, j'ai 73 filles, dont 44 garçons. donc le taux de pourcentage des filles est plus élevé que le taux des garçons. Mhm. mais fii tamit il y a des problèmes comme on le dit. Mhm. donc c'est partout d'ailleurs. Mhm. donc fii problème majeur yi ñuy rencontré fii nii au niveau de l'école. mooy que ne euh, les filles. ni ñu war ñëwee ci école bi ñëweewuñ ko noonu. sinon bu ñëwee ci école bi aussi bu ñu mën a suivre cursus normal. parce que dañuy abandonné. donc abandon yooyu c'est dû à quoi. soit au mariage précoce ou bien les travaux domestiques. donc loolu nag mooy suñu malheur. Mhm. waaw donc. Mhm. on sensibilise les parents on sensibilise les élèves dañuy def ay sketch et cetera pour pour sensibiliser donc def nañ moyens yëpp pour sensibiliser mais. Mhm. au fait sensibilisation bi day des fois da ngay dem ba dina jëriñ dara daal. parce que fii le taux de pauvreté dafa xaw a effectivement. voilà loolu tamit euh, kii la euh, inconvénient la. Mhm. donc ba tax na élèves yu jigéen ñi moom pour seen njàngu normal normal normal da d'ailleurs fi au niveau de l'école da ngay gis élèves bu defee CM2 balaa xaw ma CI euh, balaa muy àgg CM2 sax ñu maye ko. mu dem loolu teel na li ma bëgg a xam qu'est-ce qu'est-ce qui cause ce mariage précoce c'est c'est la pauvreté ou bien c'est quoi. d'une part, on peut dire que c'est la pauvreté. Mhm. D'une part. Parce que fii fii c'est dans la zone rurale donc xam ngen zone rurale lan moo fi nekk. Mhm. donc d'une part mon nañ ne c'est la pauvreté moom en toute sincérité. Mhm. donc parent bi en quelque sorte day may xale bi pour décharger wu. bien sûr. voilà voilà voilà pour décharger wu en quelque sorte. voilà voilà voilà. léegi ah, voilà léegi tey euh, lan ngay conseiller lan ngay ñaax parce que dégg naa si mhm. sa wax nga ne da ngay dem ba des fois da naan sensibilisation bi du la jëriñ dara mais je mhm. pense que ni rek à chaque fois bu ngeen mhm. sensibiliser xëy na am na benn parent di jëlu boo xam te ne changé na avis ci gis-gisam donc euh, yeen enseignants yi waru leen xaddi da ngeen war euh, di sensibiliser rek tôt ou tard dinañ leen dégg peut-être comme ni nga ko waxee nii nii nii ak taux de pauvreté bi fa nekk du yomb mhm. mais quand même mhm. continuer leen di ñaax à que mhm. parents yi xam ne actuellement njàngum jigéen ak njàngum góor euh, yëpp a yem déjà droit la comme ni mu koy waxee ku judd rek dañ laa war a duggal école nga jàng voilà loolu droit la donc parent yi dañ ko war a def c'est vrai que nag ñun fii Sénégal dañuy voter ay loi mais euh, maanaam application bi voilà mooy doon problème parce que parent bu ne obligation la xale bi mm-hmm. nga dem dugal ko donc école moom lu ñu naan le droit à l'éducation e, effectivement mm-hmm. donc tey mm-hmm. boo boo boo woon ak benn parent boo xamante ne ku mel ni di jëlu ne man sama doom <laughs> du jàngi wala sama doom bu jigéen du def lii comme ni nga ko waxee tâches ménagères yi day toog euh, ak yaayam lan lan lan nga koy wax man des fii ni parents yi sax dañ ma koy wax man depuis bi ma ñëwee dans cette école en octobre 2014 jusqu'à présent uh-huh. ci loolu laay xeex bu den bëjëg ak woon toujours toujours toujours ci parents yi xam nañ ci dara duñ ma bàyyi may fenn uh-huh. donc ci loolu laa nekk parce que dama ne liggéey amul góor amul jigéen uh-huh. toujours damay jël exemple ci man pour xale yu jigéen ñi nee naa leen man je suis là. Mhm. dama jàng samay parents dañ maa dañ maa dañ ma jàng ba mën leen a jàngal. Mhm. man tamit dama bëgg surtout les filles. Mhm. ngeen dooni leneen ëllëg. parce que loolu suñu fierté lay doon. mais par exemple parents yi aussi des fois wax ak ñoom ñu ne la waaw waaw waaw waaw mais au fait waaw waaw boobu duñ ko appliquer à la règle. xam nga donc tout ça a grâce a la pauvreté par exemple gis man tànn na la tuuti nga jël sa doom jox ko ko pour mu dem en comme ça charge boobu génn ci say loxo. dëgg la li ci ëpp nag li ci ëpp nag c'est ça. Mhm. mais donc ñu ngi ciy xeex ñu ngi ciy def suñu kem kattan moom. Mhm. pour dëgg dëgg fa neex yàlla ñu jéem a éradiquer ce ñu ngi ciy xeex bu baax a baax a mhm. baax. d'ailleurs fii au niveau de notre district de Koki. bokk naa ci kii SCOFI bi membre SCOFI bi parce que fii dañoo créer un bureau. donc la présidente kii euh, de la commission communication. nekkoon naa ko au niveau du du département de Louga. Mm-hmm. donc fii suñu zone au niveau du district. Mm-hmm. bokk naa ci les membres du bureau de la SCOFI donc fii au niveau de notre district ñu ngi xar suñu tànk tubéy. Mm-hmm. parce que xam nañ ne réalités yi fi donc ñu ngi def suñu kem kattan pour jéem a éradiquer loolu daal. d' accord léegi est ce que aussi euh, de la même manière ngeen di sensibiliser parents yi est ce que tamit du ngeen ñëw ci côté état Euh, je mhm. sais pas ban levier ngeen mën a euh, appuyer mais je pense que mhm. pauvreté boobu ngay wax bu fekkante ne woon ne état bi mu ngi leen di mhm. aider euh, comme il se doit pour que ñooñu xale yooyu noonu comme xale yu jigéen ñi ñu jox leen ay fourniture yu doy jox leen ay tenues yu ñuy jàngi jee je sais pas mhm. créer un peu d'emploi ci zone rurale bi pour leurs parents wala mhm. benn loo xamante ne dina leen permettre ñu am ay revenus je pense que mhm. aussi loolu solution lay doon pour que xalil jigéen yooyu noonu continuer seen jàng parce que aussi nga ne parent bi bàyyil sa doom muy jàngi mu war a xalaat bu yeewoo goûter bu mu koy jox ndekki bu mu koy jox fourniture bi mu war a jënd yére ak dàll je pense que kooku du la dégg parce que joxoo ko solution boo xamante ne dina ko mën a dimbali pour mu jël yoon bi nga xamante ne yow yoon boobu nga bëgg mu jël pour doomam bu jigéen bien sûr bien sûr bien sûr maintenant pour ce côté mhm. donc état bi des fois def ñuy subventionné mais xam nga subvention état ce sont des miettes comme on peut donc accompagnement boobu mu mu mu war a def daal au niveau des écoles dafa xaw a def daal d'accord parce que fii nii subvention lay joxe mhm. avec la participation des parents d'élèves par exemple fii au niveau de l'école damay def ouverture chaque élève cotise mille francs mille francs mhm. avec 117 élèves, c'est une somme dérisoire. Mhm. avec 117 000 tu ne peux rien faire tout. Mhm. donc loolu noonu montant boobu moom la ñuy jël moom la ñuy kiiyee durant toute l'année scolaire. Mhm. ci la ñuy def suñu besoin yu ndaw nawaani xam nga loolu tamit day xaw a doy waar. donc par contre il y des écoles yoo xamante ne fii. ils ont l'appui du plan. mais ñun malheureusement. Euh, ñun bokkuñu ci appui yooyu noonu donc ñun ñooy débrouiller suñu bopp bu état indee ñu jël bu indiwul dara ñun ñooy débrouiller fii suñu bopp daal. ce qui n'est pas normal <laughs> di jëlu loolu normalul benn école warut a mën a débrouiller boppam état bi war na si dugal loxoom secteur éducation bi waaw waaw dina joxe mais li muy joxe daal mooy loolu daal mooy loolu mm-hmm. mooy loolu daal en tout cas dina joxe daal état dina joxe mais li muy joxe mm-hmm. par rapport ak effectif yi am par rapport ak besoin yi ñuy am au niveau des écoles dafa xaw a daw daal dafa xaw a daw loolu kaa la uh-huh. loolu kaa la maanaam comme ni ma ko wax Sénégal ñetti kaa la am cas sécurité cas santé ak cas éducation waaw muy trois cas yi trois cas yooyu nag moom <laughs> nguur gi war nañoo jël seen loxo teg ko si ndax ba en tout cas lu si bëri ñu mën ko saafara du dëggam voilà en tout cas merci beaucoup madame euh, la directrice ñu lay jaajëfal bu baax mm-hmm. comme ni ah, di la ñaanal aussi nag nga tane bu baax ndax démb bi ñuy waxtaan yaa ngi ma naan que nii euh, danga nga xaw a tawat mais di nga def sa kemtalaay kàttan pour euh, mën a participer ci émission bi parce que scolarisation des filles bi dafay di loo xamante ne quand même sa combat la donc ñu lay remercier bu baax euh, madam Ngom di la bàyyi nga tàggook ñi nga xamante ne ñoo ñu doon déglu madame Ngom daa mel ni dem na nag. madame Ngom daa mel ni dem na ñu koy jaajëfal euh, bu baax a baax euh, di jëlu di ko ñaanal mu tane ak jàmm. Mhm. je pense que li moo wax aussi man. fi ma si gën Euh, appuyer mooy par rapport au aide bi nga xam te ne moom la wax ne que état bi dina leen ko jox subvention yi et la majeure partie subvention yooyu noonu seetlu nañ ko même dans tous les secteurs bu mu mënti doona dañuy jooy tout le temps que ni subvention bi état bi di joxe jëriñul dara mais lu tax loolu di jël mais loolu du du du lu bees subvention des États au niveau des des des des éducations. écoles des écoles de la santé sport lépp loolu du lu bees loolu du lu bees. ñaata école ñoo fi joytu eh, état def fa dara. Mhm. surtout école publique yi. Mhm. après bul yi la tenue yi la après. maanaam parents yi ñooy débrouiller di fay seen doom yi jàng. Mhm. pour ñu mun ba ñu ba ñu mën a egg à un certain niveau. mais état yi kay moom defuñu ko def. wala ñaata ñaata ñaata village ñoo nekk di jooy école yoo mm. xamante ne ay ba léegi depuis kañ ba léegi ay gaz ñoo fa ay crainte ñoo fa nekk ay mm. ay ay ñoo fa nekk mm-hmm. seen école ñuy ñuy bu tawee bu tawee mu kii population ñooy mobilisé dem àll mm. Euh, indi ay kii bi saket pour mun ñu pour xale yi mën a jàng. waaw bu tawee ak inondation yi kenn mën a jàng état état ñu <laughs> loolu ça loolu nouveau loolu lu bees kon nag vraiment état war na góorgóorlu. éducation santé moom. Mhm. mooy sama trois cas rek éducation santé sécurité ak sécurité bi trois cas yi problème si Sénégal <laughs> Sénégal ah boo ko jëlee yëpp yow li nga nekkee <coughs> kaa nii ci sa émission kaay <laughs> maanaam noon la kaa yi bëree ci biir Sénégal mais man ñett yi laa ci choisir santé sécurité ak éducation non ñetti moom ñetti moom boobu moo si gën a garaaw ñetti moom bu réglé moom. Eh. Sénégal la xam est-ce ak lii nii. seen eh. ak gouvernement bu ñuy gis nii. Eh. lii bii nii. liggéeyu ñu de ah nañu liggéeyal xale yu jigéen ñi même bu ñu liggéeyu tamit nañ liggéeyal xale yu jigéen ñu jox leen quand même euh, opportunité jox leen moyens nécessaires yi pour pour pour ñoom ñu mën a des ci école yi mm. mën a jàng mën a yeggali seen jàng ñu bàyyi quand même euh, mariage précoce yi nga xamante ne euh, ñu ngi koy gis ci même moi sànq mariage mu réew noppi léegi est que moom jàngam dina continuer hmm. du mun a continuer il suffit mu may ko rek mu débarrasser ci moom rek dund bi parce que su ko mayee dund bi dee wàññi mu ne xaar ma dugal ku góor ki ku góor ki waaw jigéen euh, la kii la te seetlu nañu góor ñi moom amatuñu benn fula ci jàng bi place daara yi ngeen di jël kon léegi parents yi def leen effet contraire da leen di jël xale yu jigéen yi ngeen dugal leen école xale yu góor yi mel ni di jëlu ngeen bàyyi leen ci biir kër gi ñu dem ménage yi fóoti raxasi dem àll ba taxani ñëw taal du dëgg Ah, d' accord d' accord ah, n' est ce pas la dëgg la boo d' accord rek la non boo ma d' accord man effet effet contraire boobu loolu laa gis. Hmm. ñu ko xam ah, nga avant c' était présent hmm. góor ñi lañ njàng hmm. parce que jàpp nañ ne yéen seen njàng moo ëpp njëriñ. xale yu jigéen yi toog ci biir kër yi ñu teel leen a maye. est ce que tu vois wala yéen xale yu góor yi ngeen trompé leen yàq seen jàng. est ce que fépp la est ce que fépp la fépp la léegi société sénégalaise moo demee noonu léegi nag man dama ne effet boobu nañ ko wëlbati xale góor ñi fii góor bi xale yu jigéen ñi dem jàng fii góor bi fa trompé xale bu jigéen fii nii nii nii nii nii hmm. yéen ñaar yëpp yéen la neex yéen la yéen la du forcé du du dogal mm-hmm. mm-hmm. xale bu jigéen moom mooy toog xale bu góor bi day continuer mais loolu moo ko neex loolu moo ko neex non neexu ko ah, yéen a ko détourné yéen a ko détourné na fekk ci yow nee na détourné bu nekkee si yow kay dama lay détourné Fatou Fatou di loolu dis la vérité tamit ñu waxante dëgg rek dañu waxante bu fi mm. dala dala neex rek dala neex moom bu la neexul dala fii ba demeen du la du la du la trompé di mm. ay di est-ce que des fois du doon aussi ndogalu yàlla amul benn ndogalu yàlla foofu amul ndogalu yàlla ba neex la rek mm. yàlla jox la yàlla jox la xel bi ngay xalaat yàlla jox la xel bi ngay xalaat aussi yàlla mooy faiblesse yàlla mooy doon faiblesse nit non yàlla mooy bindee nit noonu mu faible bàyyi dine yàlla mooy bindee noonu si faible yaa ngi ah. lépp lépp bi ay faiblesse ay lépp lépp lépp ci bànneex la rek ci bànneex la si boo toppee si sa bànneex nga am lu la neex mm. boo toppee sa bànneex nga am nga dem fu la neex mais boo toppul sa bànneex mm-hmm. doo def naka su dul noonu léegi jigéen yi sensibiliser ko parents yi maanaam askan bi lañ fi nekkal nañu gëm seen bopp étudier nañ ko mooy scolarisation xale yu jigéen yi xam te ne des fois du yegg mm-hmm. léegi yow lan ngay wax xale yu jigéen yi lan ngay wax parents yi nga xam te ne des fois. xam nga ñoo leen di maye wala ñoo leen di a <laughs> la <laughs> li ngay wax nii sax li mm. kii waxi da eh. la yor maanaam ñu ne la kii <laughs> ñu lay amul kii ko nii xalal ko wax ñëw waxal sa waay nee nii ak nii ak nii ak te li nga la ñoo tax ñaata at mm-hmm. li ñuy ñu fi wax ñoo la ma ko gën a xam lu ñu li ma leen di wax mm-hmm. ñoo ma ko gën a xam mm-hmm. te ñoo ma ko gën a ñoo ma ko xam encore une fois tamit tamit waaw léegi lan nga leen di sensibiliser déggoo ma de sensibiliser man kay ah ñoom xale ñi xale yéen ñoo ma mag fuuf. ñoo ma mag fuuf ci xel ñoo ma mag fuuf ci xel ñoom lu ñu xam. xaw ma ko léegi lan ngay sensibiliser parents yi lan ngay sensibiliser parents yi. waaw parents yi comme nañu continuer seen éducation rek. lu ñu lu ñu fu ñu nekk rek nañu continuer seen éducation parce que. man gis naa man gis naa ni euh, sa doom sa doom doo ko doo ko dugal doo ko dugal foo xam ne suba dina la indi kàllankoor uh-huh. doo ko def uh-huh. da ngay continuer sa sa sa sa sa éducation rek uh-huh. li nga li la war ci moom sa diggante ak moom ak diggante diggante parent ak doomam ak xale yi nang ko war rek na nga ko samp nang ko matal parce que euh, yàlla xamal ni yàlla dina la ko laaj d'accord samp sa pare sa jaboot yi et dina la ko laaj donc dafa la war moom pare moom dafa li la war moom xale jigéen moom ñoo moom jeex euh, bi moo ko laajoon muy donc njàngam xale yu jigéen yi ñuy jaajëfal bu baax ñi ñu doon seetaan di jaajëfal bu baax madame Diouf ak madame Ngom si seen contribution di leen di jox dig dajee suba à même heure donc 10 mun ngeen ñu suivre aussi si euh, YouTube bi si suñu réseaux sociaux bi Facebook Instagram suñu Label TV ci xolu Sénégal ci xolu sénégal yi ñu ngi Twitter aussi di leen di ñaanal euh, voilà ak TikTok bi di leen di ñaanal ñu yendu ak jàmm di leen di jox di daje suba incha allahu rabbi ci seen beneen numéro ñuy waxtaane nag polygamie cause conséquence ba suba Qu'en investissant dans le capital humain, nous